justice moom dafa bokk ci keneen nga xam ne ñoo tungoom wàlluma organisation ci nguur gi le sax bu fekkee ne justice amul kon nag société wala sax nguur du am kon bu fekkee nag li nga xam ne mooy pouvoir politique yi yi réewum africain yi le dafa tax rek di mën am exercice du pouvoir wala yoon da ci am doole lool waaye charte bi nga xam ne moom lañ daal di teg ci jamono révolution ci atum 1976 tax na ba Thierno Souleymane Baal ca Fouta ne daal ñu wala yeneen bànqaas yoo xam ne ñoo fokk ca ñoom loolee kat am na lu bëree bëri loo xam ne liggéey nañ ko laata colonisation bi di am waaye tam ci loolu nag état yu yi ñoo nekk ci copier mu daal yi ci réewum colonisation ba léegi yoot la constitution daanaka doonoo jël rek taf fii taf fële daanaka amul lenn nga xam daal ñoom ñoo ko xalaatal seen bopp wala sax code pénal wala sax code civil ak lépp loo xam daal dafa bàyyi ko tugal lépp daal dañ koo copier coller Afrique nag moom créé wul dara lépp daal dañoo gis ne rek dañoo nekk ba tey ci wàllum nooteel gént bi nga xam ne kat wàllum yoon ci réewum Afrique yi am na ko dafa delluwaat ci réewum Sénégal gi nga xam ne nekk na dëkk ba indépendance waaye nag dafa mel ni ñi nga xam ne kat ñooy waa tugal ba tey dañ fee am tànk lool waaye ay at a ngi nii wàllum indépendance ci réewum Afrique yi ak Afrique nga xam ne daal gis na ne kat ñoom kat pouvoir africain yi lée tax na xam ne yees la waaye loolee daal amatul dafa mel ni kat ci président la daal di sukkandiku benn nit na moom buur la Sénégal nag moom rëccu ci loolee ndax gis ne ñi nga kat ñooy ay réewum africain yi la daanaka sax kenn rëccu ci waaye gis ne kat lu yàq la loo xam kat ci wàllum yoon bu nga xam ne dafa delluwaat rek sentiment bi nga xam moom la askan wi am maanaam duñ ko dummóoy waaye ñu bëree sax daan ne juste bi nag moom tëddeewul njaaxaanaay kon dafa mel ni kat dañu mel ni danoo dóor doom làq doom saa su ne ci justice la dut baaraam kon nga xam ne sax moom lañ judduwaale déedéet kon nag yoon la ñu daal di saytuwaat wàllum yoon ak pouvoir yi nga xam moom lay àndat ak lépp lu nga xam da cee banqaasoo waaye ñi nga xam ne tamit ñooy suñu kilifa diine yi ak kilifa aada yi ne ak ñi nga xam la jaanal ko ñi nga xam ne kat ñooy suñu kilifa diine yi ak ci kilifa aada rawatina ci jàngu bi ak ci réewum Afrique yi le loolee tax na daal ñu mën cee tibb kat fexe daal ba lu nga xam ne kat kenn du mënu koo jeexal waaye loolee tax na itam ci wàllum politique ak am nañ responsabilité bi nga xam ne dañu war a lëkkale justice bi ak askan wi bu ko defee tamit valeur yi nga xam ne moom la ñu ràngoo saa su loolee gën a ñoŋ bu ko defee askan wi tamit gën a bàyyi xel ci yoon ne kat am na Sénégal